douze dafa seer trop li nga gis ne ñun dañoo toopa puura fu nekk ñu ngi si yéen parce que yéen a gën a am solo moo tax ñu ñëw si kër yi pour defaral leen loolu suñ paree puura dina ñëw si ñun pour su ko defee ñeneen fukki juróom fukki juróom fukka juróom ñetti téeméeri junne ak juróom fukka yi nga xam ne moom la ñoo feer feere weer bu nekka ñoom su fekkee ne ñëw nañ si ñun xëj na mu dem ba si ñeneenti téeméeri téeméeri junne su ko defee beneen ñeneen ci téeméeri junne bi su ko def mën nañoo ne ah Toubacourou nañ leen leen jël jëlal loolu dugalee leen ko fii mbaa ñu Central nañ jël loolu dugal ko fii mbaa Gamboos dañ bëgg a ngeen defaral ñu benn ñaari tali fële xam nga soo courant bi loolu la bool si ñoo use comme ni mu ko waxee rek dafa seer moo tax ñu wax ko de yéen ñeen ay yi liñ leen wax fii soo teekee ne yéen jàpp ngeen loolu ngeen méeg soo ne wecci ngeen seen bool si nekk si seen kër yi yëpp ba pare ngeen dem wax ko ñeneen ñi nga xam ne ñoo nekk si seen gannaaw ba pare bu leen em fii rek de yóbbu leen ko si yeneen parti Banjul yi dafa nekk rek ne yéen fii yéen a gën a affecté yéen la problème bi dee gën a dal waaye Banjul yëpp comme ni ko manager directeur général bi waxee ba pare dafaa dem Gambie yëpp soo soo leen jógee fii tam ñu nekk central ñu nekk south ñoom ñëpp wax leen leen li nga xam ne xiiwal xéewal bi nga xam ne moom ngeen am fii ba pare li nga xam ne moom lañ leen wax si bool su ees nga xam ne moom la moom lañ leen puura di defar li ngeen gis tey ah foo leen toog ngeen waxtaanee ko ba pare ngeen dimbale ñi ñi ñu wecci bool su màgget yi nii dañ bëgg a Gambia yëpp ñu clé bool su màgget yi nii bàyyi di leen jaay sax ba pare ñu do ñu use si nga xam ne mooy tax ba courant bi nekk si dëkk bi yëpp dinañ ko mun a distribute ñëpp mun a am courant su nañ jéem a dimbale suñ boppa bu ñu toog di foog ne ah suñ amee lampa yu lampa yu màgget yii nii ehm, dafa dafa yomba njëkk su loolu rek la ñoo jënd nañ jéem a dajale tuuti ñuy wecci nanka nanka waxuma ne da nga war a jóg dugal si sa kër wecci yëpp xëy na weer bu nekk nga nga wecci tuutri baax na ah su demee benn at rek dina fekk a change ngeen yëpp loolu lañ war a def waaye maa ngi leen a ñaan soo gisee maa ko waxaat rek dafa important pour ñu génnee lampa yu màgget yii nii dugal US abi najang tobacco road adalilo minti wolom nyenti kana mol kunindi ke kala mutandi bolsol milyalon ko nka kurangol ta ke mala nabungol kono a ninga na tishatol bala jibe bols fulala bijang ñin dongol mi je mi yalon ka wulad wuleri ngo soto mo jama ka wala malela bungol kono ngaji be ko aka dulal kandindi la wolom ñin dongote um, sayin mbe kunindiro ke kam mool ye pul ke kala mutande ko nyim bols do mi ya lon ko atele da kola yata damandin banni ya soto la bun kono ila kuran bilo ñinga be jilale anim fanam bun kono te kandila ko ñin donga ka bun kono kandindi nyami so kamala a pour taman taman wala wulindi seru nga kenun kane finne nyina nga ngania pour kana ke banjul jan toba korod a birim injine so veke ke ay murumurugo ke ay ñene itande koy ko tabakoro la jamma fongola low voltage ka soto jannato munam low voltage ti ni e courant o mala tuma ndey saaje lampo ñin abu kolo ko na malata anin wala abu ka mam mala baage so kamala birin ay sauve ñin ke anin milliyalon koy bota bcc ya itande ko tabakoro la ñin karo do la jang ni nga ñin ke je abe je mol nafa la baakele la courant o solaire ilafta la ñaamin andum fanan modol mil be bala mil man kuran so tela kuran ko se soneya so kamala bi walum mun nana dalilo ti jang pour nga maɓe mol fe anin mol mil be ñin community ta jang ata kordal kono ni nga ñin bol so tara korda korda kono fali na nañin dongal la ka jibe ni te fanan ni yo ke fo kardantan kono ye la bilo jibe la nawek bilo ba jala le min consume ñin karo ani kamin consume nun kar tambilale te kala kilindi so na be mo dalilo mu ñinati soo dangay ne lampa yu màgget yi li ñoo xicca si courant bari na torop loolu moo tax dañ bugg a dimbale njaboot bi daal bu ko defee ñu use euh, bool su économie yi mooy CFL lamp yu ees yi indi tey ñu poosel leen ko seen biir néegi yi bu ko defee seen biil bi wala seen cash power li ngeen dee jënd cash dina wàññeeku torop lampa yi tamit am na ñaari façon ñu leela leen ko am na bu njongaan bi bi nga xam ne boobu 25 dollars si lañ koo jaay boobu du dee yaaga yaaxa xaalis la balaa ngaa dem ñaar ñetti semaine mu lakka nga am pour dem jëndaat am na ñoo xam ne biñ demoon si suñ bantaba toobi ah, benn pa mu ne moom daf daan jënda carton sax mu denca ko si néegam bu lakka rek ñu change waaw suñ demee ba change ay ten lampa loolu mun nga see safe ay 600 700 dollars si sax di ko mën a safe si weer bi soo changee ten lampa 12 lampa so loolu am na solo torop te dala si mun naa jënd saaku maalo lii lu baax la dañ ko door fii pour njëlbeen bi waaye doo defoon nañ ko kaani Kanifing so liñ yaakaar mooy ne as time goes on dina gën yaatu su ko defee beneen yoon bi ñoo def dinañ def mu ëppa one thousand nañu ñaan yàlla mu egga ten thousand egga twenty thousand bem wér réew mi yëpp su ko defee su waree réew mi courant bi dafa mel ni courant bi dina gën yaatu dina mun a egga fu nekk ci biir réew mi su ko defee ñun ñun suñ boppa muy ñii liggéey puura ak nit ñi jàppale président bi mun a mit objectif am bi pour mun a réew mi yëpp am courant soo lii lu baax la dañ leen a ee tey soo jëlee lampa bi nga ceeñ sa kër lampa yi lu bari di nga mun a seef xaalis bu bari xaalis bi nga séef nga jël ko nga dugal ko ci sa njaboot looloo tax ñun ñu decide pour def projet bi so ñu ngi leen a gërëm li ñu war a def mooy pour dugga ci kër yi pour change lampa yi pour mun a een nit gannaaw buñ santee yàlla julli ci yónnentam bi kontaan nañ ci lampa yi ndax kër jaboot nga ñëw fekk ñuy fay lampa lampa yu seer a ah, nga ñëw léegi nga ne lampa bi léegi li ngeen daan fay xëy na mun nañ mun nañ koo xaaf ngay fey ah li ñoo xaaf na am na fu mu la dugg si njaboot gi te loolu kontaante la te lampa yi gis nañ ne daal jàmm a àndal ndax lampa yi la dégg dégg soo ko taalaan si tàngaay bi soo ko taalee ba posé ko five and ten minutes boo ko laalee mu tàng foog nga téye morso génne waaye yàlla def na nag yii lampa yu weex yi ngeen indi moom tubaab fakkaat la lampa yi baax na dafa mel ne daal lampa yi moom daf ñoo indi sedd ndax tàngaay bi ñu doon yëg ci lampa yi bu ñu ko taalee duñ ko yëgati te lampa yooyu mooy lampa yi nga xam ne mooy bés lampa nga xam ne dina indi wér gu yaram ndax tàngoor dafa am lu moo def ci yaram waaye sedda bi moom bu ñëwee lampa bi tubaar fakkaat la baax na ñu dee kontaan nañ te kontaan bi di ngeen ñëwee njëkkee Tubaakuru gi nga xam ne ñu sonn ci lampa lañ ñu sonn ci courant bi dañoo fay di fay ndekete woo li mu ñu daan dugal ci fay mu seer ndekete lampa yi boobu yi ñu doon def mu indi lampa yi su courant bi ñëwee bil bi ñëw ñu naan bil yi na seer na ndekete boobu si lampa bi loolu moo nekk indi problème bi. waaye kontaan nañ lool bi ngeen indee lampa yi njëkkee ko Tobacco Road bi ngeen xam ne ñu fi lañ dëkkee di ñàkk a lampa toujours ndekete diisaay boobu moo daan tax ñu ñàkk a lampa waaye léegi bu ñëpp amee ci lampa yi yaakaar naa ne lampa yëpp dinañ dox na mu war a doxee te li ngeen def contane nañ ci ndax doomi réew mu baax nii laa def da ngaa seet liy dimbale doomi aadama yi nga jàppale leen te yéen woo ngeen seet seen ngeen ne coono nañ ci lampa yi coono nañ ci courant bi ngeen ñoo indi nag jàmm ñu ngi leen di gërëm di leen sant di ñaan seen taxawaay yal na ko yàlla yokk seen seen seen comme ni bi amul morom tubaar fakkaal la baadoolu yem ngeen dimbale nag ñun ñëpp ngeen dimbale. lampa yi ngeen ñu ceeñal nii ah daanaka da ngeen yokk suñu dunda suñu dunda ngeen yokk de ndax liñ daan war a ngoor yëpp jox ko nawet dégg leen xayee xaar dinañ dese xaar suñu loxo yi muñ ko jox suñu jaaboon bi ñu dee wër te li des ñu def ko lañ demal jaagee moom te loolu yëpp ñu ko doon am. léegi dañuy sant yàlla bu baax seen liggéey bi ba ngeen bugg a mu àgg yal na ngeen ko yàlla weesale. ah yëf yi de séntu nañ ci baax parce que ñun demoon nañ ci training bi am nañ meeting bi si si wan nañu ne lamp yi ñoo gën yële. Mhm. ñoo gën a économie ba pare ñoo gën a baax. Mhm. ñooy voltage bi moo gën a baax daal bële na le gars yi ñëw nañ fi dugal nañ ci néeg yëpp néeg bu nekk ceeñ nañ lampa yi yóbbu yële indi ñu yéen ñaata lampa lañ ci. fi mu nekk uh, about fu uh,